salaamaaleykum chers internautes salaamaaleykum yéen ñi safoo programme Seneweb TV seneweb.com tey ñu ngi Thiès seet si l' international sénégalais Khadim Rassoul Diokhère Khadim Rassoul nekk doomu Thiès boo xam ne ne mi ngi mën a talent si football fële si Turquie si waxtaan bi dinañ waxtaan xam lu bëri si moom ak surtout ak saison ren Mourid Sadikh. 40 ah murid Sadikh. maa ngi lay nuyu Xaadim. waaw Bàmba. seen naa war maa ngi ziar di la màggal. di kontaan sa teewlaay si. Mhm. Eh, di am mbégte loolu si ñëw bi nga ñëw fii comme ni nga ko defee woon daaw. Mhm. waaye di nuyu sama bokk sénégalais yi ak képp ki nga xam ni daf may béggee te mu nekk bitim réew. maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sama kilifa. sama papa sama yaay samay sœur sama soxna maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf Khadim alors tey Khadim Rassoul Joher la ñuy waxtaanal Adana Denis sport la nekkoon nekk ren Aliana sport parcours yàgg na ko bu wax xam naa te ñu si indiwaatal tënkal ñu ko rek sa parcours si football. waaw sama parcours ci football fii laa defee petite catégorie raay raay bu Thiès mhm. après ma jóge raay dem Lusitana jóge Lusitana dem AS Pikine jóge AS Pikine dem Anderlecht Anderlecht après Adana demi sport après ma jóge àddana dem Alanya sport. Alanya loolu mooy parcours mais dafa am ñaari mbir yoo bëgg ñu taxaw si balaa ñoo yeggali waxtaan da nga da nga insister da yi nekk fond sonore entretien bi. lu waral loolu. waaw ñun dañoo judd suñu papa nekk murit nekk jullit xam nga mu tuddee ma Xaadim Rasuul kon yoon la mooy mooy dund Serigne Touba parce que moom la ñu am waaw suñ kër ñëpp ay murid lañ waaw yoon la ma nekk Baye di ko dund mu nekk lu dund mu nekk lu nekk mu nekk lu dëggu ci man depuis tout tànk ma koy dund ba ni may nekkee professionnel waaw kon du ñu def lu dul di sant Serigne bi saa su nekk moo waral ku ñu gis day gis quarante murid bi si ñun fu ñu dem dañ koy wane dañ koy fësal. jërëjëf loolu nekk na lu am solo beneen bi moom xam naa di nga reetaan xarit lu tax nga dëgg rase <laughs> waa rase yi dama demoon umra. xam nga ma donc c'est obligé ma dagg ko xam nga rek demoon seeti sang-sang yi ziar ko. macha allah ñaanal fa ñëpp di ñaan Sénégal am jàmb xam nga di ñaanal bépp mboolem jullit suñu boroom defal la tawfeex ak taysiir. alors Khadim ñëw na vacances Khadim nan lay passé vacances am. waaw samay vacances comme dab rek saa yi bu mu ñëwee vacances damay organiser ay cant. sant yàlla sant Serigne Touba def ay match de gala xam nga invité yenn professionnels yi après nekk ak samay nekk sama famille ah. Mhm. parce que ça depuis ba nekkee professionnel ba léegi musuma dem vacances fenn Sénégal laay passé samay vacances yëpp moo waral saa bu ma ñëwee rek continuité lay nekk li may def laay defaat organiser cant sant yàlla sant suñu borom. def ay match dagala entre entre copains. loolu loolu am na solo ñu ñëwaat ci sa saison ren ak Alena Sport boo doon évoluer sa saison ren ak Aliana Sport euh, ban note nga koy jox ak noo koy évaluer. waaw saison bi saison ren bi moom dafa nekk saison boo xam ni euh, kontaan ma ci sama bopp parce que awma si temps de jeu bu bëri euh, yeneen saison yi laa gën a joué. saison bi dama dama commencé ak ay blessures xam nga ak changement d'équipe bi ak yooyu noonu adaptation bi. moo waral awma temps de jeu. Mhm. waaw moo tax kontaan ma sama bopp damay liggéeyaat pour année prochaine ma def saison boo xam ni macha allah loolu la ñaan. saison prochaine incha allah rabbi nga def saison bu baax a baax a baax euh, ñu taxaw ren cette année déggoon fi benn coow. Adana Deni Sport bi nga mhm. nekkoon capitaine am. dañu résilier sa contrat. ñu naan Xaadim euh, amatul contrat amatul club. Mhm. ñu gis Xaadim Alena Sport. ku nekk wax na mais quelle la vraie version. waaw euh, dafa am benn équipe bu nekk deuxième division muy Eyub waaw suñu président bi ak président Eyub bi ay xarit lañ euh, kon ñoom ñoom ñoo mënoon def euh, offre transfert bi ñoom ñoo ko mënoon ñoo d'accord ak moom. ñu waxtaan seeg man may leen man d'accord naa signé foofu mais du ma joué du ma delluwaat di joué waat deuxième division da may appelé kon. moo waral Ulib laa signé après ñu abale ma Alanya Sport. Alanya Sport mën nañ jàpp ne at bi Alanya Sport ngay joué waat. non at bi damay dellu Ulib mais affaire boobu mooy continuer waat. soit dañ may abale wala ñu xool beneen. transfert mais Khadim Khadim yow def nga presque cinq ans voire six ans. Mm-hmm. championnat Turquie. Mm-hmm. est-ce que jotul nga xool feneen. nga ñamaat beneen championnat wala Khadim. Mm-hmm. ban championnat mooy refléter Khadim le jeu si la gën a gis boppam. waaw sama jeu gis naa ko si championnat yëpp mais surtout Angleterre parce que yor naa profil bi pour jouer foofu peut-être yàlla moo tuddagul ma dem foofu parce que chaque année damay am ay proposition équipe yu bëri xam nga mais du ñu déggoo ak suñu club quoi président bi des fois moo ciy dégg tànkam kon si sous contrat laa nekk. Mhm. xam nga damay négocier rek ba xool nu ma génnee foofu quoi mais bëgg naa at bi nii ma jóge Turquie parce que def naa fa plus de cinq kon amatuma leen lu mu fay. amatul challenge quoi waaw léegi euh, yow relation ak sénégalais yi nekk championnat turc nan la dem waaw kon sama relation samay samay samay frère fi ñu nekk fii xam nga ñun bépp sénégalais bu nekk euh, extérieur mbokk taalibe lañ jàppee. Mhm. xam nga ñun ñëpp benn lañ fa dañuy déggante des fois ku ci am jour libre doo demee si dëkk. dëkk bi nga xam ne am na sénégalais da nga koy woo ni ko maa ngi fii soit da ngeen di daje ci ville bi gisee ak yooyu noonu saafante parce que ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy liggéey quoi. Mhm. yéen a bokk li ngeen di liggéey. Mm. jàppoon na yow championnat Turquie c'est il est sous côté. Mm. wala dañoo jàpp ne championnat Turquie ñi ñi dem ñi am ñi mënul imposer en Europe ñoo fay dem. Mm-hmm. moo tax ñu jox ñu ko crédit bu bëri. non man jàpp ma loolu parce que da gis ay joueurs yu nekk Angleterre di fa ñëw di jouer ay joueurs yu nekk championnat France di fa ñëw di jouer en plus gis naa si aussi jour yu fay jógee di dem Angleterre kon championnat bu am visibilité la aussi. kon sinon gars yi duñ fa ñëw ko mhm. gars yi duñ fa ñëw du am visibilité mais mais fi ma bëgg a waxee mooy par exemple équipe nationale du Sénégal. Mhm. Euh, joueurs yi nekk championnat Turquie des fois duñ leen accorder du crédit est-ce que jàppoon ne jot nañu a yaatal affaire yi. waaw loolu euh, ñun suñu liggéey mooy terrain bi xam nga jéem a def performance liggéey ba gars yi gis la wóolu équipe nationale choix bi moom mooy dépendre si coach bi ak xam nga ñi nga xam ne ñoo yor wàllum di xool joueurs yi nekk si yeneen yeneen yeneen euh, championnat yi mm-hmm. mais da baax aussi ñuy xool ñu nekk Turquie xam nga parce que pour man euh, championnat yëpp l'essentiel mooy performance jour bi la ñuy xool xam nga ak individuellement xam nga qualité yi nga xam ni war nañ ko mën a woo pour mu ñëw représenter équipe nationale parce que ay ndaw lañ Sénégal ba muy joué ñun dañ nekkoon fii di supporter di peinture suñu kanam yi ñu ñuy gañee ñuy jooy mhm. suñu waroon dimbali ñu tey bañ nekk professionnel xam nga mhm. ñu reyante tamit pour dugg ci équipe bi kon xam nga li si des moom mhm. ñoom ñoo yor ñoom ñooy def seen choix mooy loolu quoi ñooy def seen choix mooy loolu yow Aliou Cissé jotoon laa convoqué Euh, ba am na match boo xam ne ne sax échauffé wu nga yaakaaroon na nga da ngay dugg. Mhm. mais après gisuñu imposé wu en équipe nationale. Mhm. pour sa ascension en équipe dem dañ maanaam da nga ñëw convocation mais après bokk na tamit ci say challenge ak tamit euh, est-ce que am ne di nga ñëwaat. waaw am naa si yaakaar xam nga yàlla moom mooy tudd mooy tudd loolu malgré que mooy def choix am dañ koy accepté. Mhm. dañuy liggéeyaat xam nga jéem a def performance. xam nga pour ñu duwaat ci équipe bi parce que équipe bi équipe bi ñëpp la ñun ñëpp a ko bokk xam nga dañuy ñaanal ñu si nekk suñu borom yokk leen xam nga ñaanal équipe bi tamit mu yokk loolu la rek. Mhm. dañuy liggéeyaat pour jéem a dugaat ci équipe bi kon liggéeyoon nañ ba ñu woo ñu dañuy gën a yokkaat liggéey bi. Mhm. gën a yokkaat liggéey bi euh, gën a gën a gën a yokkaat liggéey bi mais par exemple euh, ñu bëri maanaam l' équipe nationale bi euh, da leen obnubilé mhm. maanaam maanaam dafa am fu fuñ ko teg fu kawe. est ce que c' est waaw moom laa lay wax dañoo nekk xale équipe bi ñu ñuy gagné ñuy jooy suñu borom dimbali ñu tey ñu nekk professionnel. nga peinture sa garab bi. waaw <laughs> suñu borom dimbali ñu nekk professionnel. di représenté Sénégal xam nga dañuy rayante di liggéey pour ñëwaat équipe nationale. Mhm. parce que nit ki amul lu dëkkam. Mhm. tey bu ñu ñëwoon dem jël beneen nationalité xam nga gars yi duñ feer ci yow dañuy dangay dégg commentaire bu négatif bu nekk. Mhm. waaw kon tamit. dañuy dañuy xaar rek peut-être yàllaa ko tuddaatul mais instant yi dañuy gën a liggéeyaat rek pour mën a dugaat ci équipe bi. jërëjëf loolu nekk na lu am solo alors xaadim comme ni nga ko waxee sànq xale la bëgg na dugg Angleterre Khadim lan mooy perspective am deux mille saison deux mille vingt trois deux mille vingt quatre lan la Khadim bëgg a def lan la Khadim fas yéene def ak lan mooy perspective bu Khadim. waaw sur le plan sport sportif. sur le plan sportif instant yi. jéem a euh, instant yi kon dama nekk su contrat am na ay proposition yu bëri damay jéem a trouver solution pour génn championnat turc bi pour gën a dem championnat bu ëpp visibilité euh, jéem a liggéey foofu def fa ay performance gagné fa ay titre euh, individuel xam nga pour mën a dugaat ci équipe bi incha allah. jërëjëf alors ban message ngay adressé sa jeunesse sénégalaise ak ñi lay setaan surtout ñi nga xam ne dañoo bëgg doon jour professionnel. waaw ndaw yi dama leen di dénk ñu patience xam nga muñ parce que football muñ ci la bokk des fois nga dem ci équipe duñ la jël wala nga dem si équipe coach bi nga dem si équipe mu metti rek nga nga bàyyi damay gis jeunes yi saa su nekk dañuy dem équipe. Mhm. pour compétir mhm. affaire yi metti ñu reculer. Mhm. pour man du noonu quoi da nga war euh, liggéey buñ la même buñ la jëlu nga toj sa xol muñ bañ a découragé xam ni suñu borom lépp lu mu bind si doomu aadama balaa muy sàngoo suuf dina ko am ñu si war a nekk professionnel dinañ ci nekk ñu si waru nekk professionnel ñu santee ko suñu borom xam ne suñu borom loolu la dogal. Mm-hmm. xam nga ñu gën a liggéey rek jox ko jox ko gëdduwaayam parce que dafa fiir am na yoo xam ne àndul ak ay détails quoi. Mm-hmm. da nga koy jox gëdduwaayam ba lépp li nga xam ni. tey boo ci réussirul nit yi ni ah kii de doon na ci def lii mais amu ci chance li bon mooy nga dundee ko noo xam ni tey boo ci réussir dañu naan ah xamoon nañ ko. Mm-hmm. parce que sa waay ci lii la nekkoon lii ak lii ak xam nga. Mm-hmm. ñuy bàyyi xel ñaar yooyu quoi mm-hmm. ñi nga xam ne dañ la bëgg ngay reyante pour réussir pour boo réussir ñu kontaan ak ñi nga xam ne yàkkamtuñu sa échec. jërëjëf chers internautes jërëjëf amis téléspectateurs Seneweb TV seneweb.com Khadim Rassoul Joher lañ dalaloon tey sunu entretien ma bàyyi ko mu def mot de la fin. waaw maa ngi jaajëfal ñëpp xam nga di ñaan Sénégal jàmb ak yi fi jot a xew nii parce que Sénégal dëkku jàmb la ay kilifa yu mag a fi tëdd donc lu mu def du ñaanal mbooleem jullit yi ak suñu mbokk chrétiens yi xam nga di ñaan Sénégal jàmm dellu si. Sénégal jàmm dellu si ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla jàmm am Sénégal loolu mooy les mots de la fin de Joxeer ñu jox leen dig daje si beneen entretien.